asalaamaaleykum waa Sénégal ci lu gàtt rek ma dellu si interpeller leen alerté waat leen bi Macky sàll génnee ne du bokk ci élection 2024 Sénégal yëpp dañu am yaakaar ñëpp félicité ko bu ngeen fàttalikoo ma ne nañu tey ndax am na certainement lu mu denc loolu mu denc mel na ne taxaw na pour génne ko dañu doon wax. ne am na lu muy rumandaat Macky sàll dafa renoncer ci candidature waaye musul jële xelam ci ne Sénégal moom daf ko war a téyal boppam moo tax ci lundi bi assemblée nationale dañu leen woo waxuma sax lu jëm ci mbiri parrainage wala ñu jëm ci mbiri mm, Karim Wade ak Khalifa ñu bokk loolu mooy li normal mais li mu ci dëxëñ moo am solo te li mu doon ruumandaat yépp ci loolu la jëm moom Macky Sall jaxasewaat constitution bi tripatouiller constitution bi ngir tas assemblée nationale parce que yéeneem moom Macky Sall mooy élection 2024 yi amaana du nekk candidat président waaye loxoom du ci mus a jëg te ci loolu nag la nekk di def fi mu toll nii njuuj njaaj waxoon na ne bàyyi na njuuj njaaj mais tey la gën a sax ci njuuj njaaj way way njuuj njaaj googu na ko jëmale ci nu ñu mën a wàññee diw gi wàññi suukar bi wàññi ceeb bi wàññi jafe-jafe yi ñi ñuy dund waaye Macky Sall lenn rek moo ko intéressé nu ñu mën a def bay njuuj njaaj ci wàllu politique loolu vous les Sénégalais vous êtes interpellés mais ki nga xam ne ñoom la ñu gën a bàyyi xel ci njuuj njaaj googu Macky Sall war di def mooy député yu opposition bi principalement waa PDS ak waa taxawu Sénégal bu Khalifa Sall seeni candidat bokk ci élection yi loolu la ñu mus a ñaan te loolu la leen di souhaité waaye bu leen ànd mukk ci luy néewal doole constitution bu Sénégal parce que Macky Sall bu ngeen ko mayee mu mën a tas assemblée nationale bii yéeneem moom Macky Sall mooy bokk ci élection yi ñëw parce que dafa bëgg coupler présidentielle ak élection législative bu ko defee moom mu jiite liste coalition Benno Bokk Yaakaar taxaw nekk ci biir lang ki sénégalais yi jóg leen réveillez-vous bu ñu may makki Sall possibilité mu mën a indi geneen jiixi jaaxa ci xelu nit ñi waaye mais moom Macky Sall na xam ne li mën a nekk Russie la mën nekk ci Poutine ak Medvedev non sénégalais yi duñu ay russe sénégalais yi amuñu état d'esprit boobu te parewuñu ci may ko moom Macky Sall li mu bëgg mu mën koo def ci réew sénégalais yi danañ taxaw jàkkaarlook moom jatu ni soccant ak lu mu indi ci njublang sénégalais yi dinañ la xaar ci urne bi te bu boobaa fi ñu jaaroon ak yow ci local yi jaar ko ak yow ci législative yi ñu weesu dana fa jaaraat ak yow ba doo am benn ndam ci yéene bi nga xam ne am nga ko Sénégal tey jii démocratie Sénégal boobu ñu amoon yaakaar te bi moom Macky sàll ne dellu na ginnaaw ci candidature nit ñi di taañaañal nit ñi di ko félicité man biroon na ma ni baadoo la bu séenee gàcce faaw mu yegg ca te loolu nag dafa interpeller kenn ku nekk ci yéen ngir lii mu nekk di def jàpp nit ñi tëj kaso ku wax ñu ne la ràpp tëj ci kaso bi plus de six cent détenus politiques jubluwuñ ci lenn lu mooy tëj làmmiñu Sénégalais yi mais que Macky Sall sache que les dina dinañu taxaw dinañu défendre suñu constitution mais dina nu fexe ba moom li mu bëgg muy njubla ngam googu du mës a sotti vive la démocratie vive le Sénégal